Salut les amis de eSport TV. Merci encore Guy de la conférence renouvelée. Hein. Merci de way like, merci de way abonné, merci également de bails, des commentaires. Comme toujours Guy, l'information continue. Et là, c'est une le double ballon d'or sénégalais et africain. Momo war ci Mané euh, le capitaine et plutôt le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal à' Cissé El Hadj a joueurs yi beaucoup vexé Ken, ah, ce sont ses propos bëgguma vexé Ken, beaucoup mer vexé mer wala ñu jëlee neen les mais ay faux débat Là. fa débat, un faux débat heure bi ñuy wax li match Tel heure joueur bu fekkee da nga bëgg a coupe d'Afrique même à 6 heures du matin da nga jouer représenter sa dëkk tu as envie de faire le maximum et que l'on lay xaar ci joueur yi union solidaire autour de l'équipe nationale du Sénégal le numéro 11, hein. il a tellement fait pour le Sénégal il a longtemps amener haut le drapeau du Sénégal ba c'est le successeur de El Diouf mais El Diouf il nous a valu beaucoup de satisfaction en coupe du monde en coupe d'Afrique mais également beaucoup de joueurs qui nga xam ne njëkk nañ jël seen xaaj di ko jënd def équipe nationale di jënd ay maillot di jënd ay tubay di ko ci def di xeex ak seen i club ngir ñëw bobu nonu, xaaris bi demagul nonu, bobu nonu, tubaab bi si la ñu sonal joueurs africains donc aujourd'hui il a été cru El a Diouf assisté à entraînement équipe nationale du Sénégal waxtaan na ak joueurs yi na ak attaquants yi am séance mu def et moi je pense que c'est ce qu'on attend de lui wax je donne toujours les bonnes informations en tout cas j'espère j'espère je fais tout pour donner les bonnes informations information et aujourd'hui El Hadj est venu pour apporter son soutien ñëw na tamit pour wan sénégalais yi un peuple lañ benn lañ ñoo war a defandoo lépp tey participer na séance yi joué na wan et je pense que tay Sénégal loolu leen manqué aussi ni Guinée amee Feyinduno tey non la Sénégal war a amee benn El Hadj Diouf wala benn Khalilou Fadiga wala benn Henri Camara sax koo xam ne tey day liggéey ak joueurs yi ci wàllum attaquant yi nga jël benn attaquant teg ko muy liggéey ak ñoom Belgique dafa leen jaral ñu dem jëli ba France ki nga xam mooy Thierry Henry pour muy entraîner ñoom Romelu Lukaku et bu gis ngeen Belgique nu ñu mel ak Romelu Lukaku donc je pense que c'est important qu'on ait ce genre d'hommes au niveau de l'équipe nationale du Sénégal pas simplement ñu conseiller président de la République ou quoi que ce soit ces joueurs méritent plus de considération un Henri Camara mérite beaucoup plus de considération Khalil Fadiga euh, également d'autres joueurs Salif yi ils sont dans l'ombre di def ay par rapport à la petite catégorie notamment Salif Diaw donc lolu dañ leen ci et on a besoin équipe nationale am ñoo xam dañ leen jege ñoo xam ne joué nañ coupe d'Afrique bi xam nañ lan mooy Afrique xam nañ lan lay dund pour également teg leen ci yoon et je pense que aujourd'hui El Hadj Diouf lu ko mën a critiquer et tout kenn gënu ko bëgg maillot national kenn gënu ko bëgg équipe nationale kenn gënu koy def ay sacrifice ci équipe nationale du Sénégal et je pense que c' était honnête de de sa part wax tey lan mooy problème équipe nationale du Sénégal nee na tey équipe bi carrément li ñu war a wane wane guñ ko mais tamit bu ñu yaakaar lépp bon parce que tamit moom nee na il préfère El Diouf il préfère ñu def match nul ba génn dem deuxième tour que ñu nekk fii di gagné gagné gagné loolu lañu daloon 2017 gagné ñëpp dem Cameroun daal ñu ci génnee donc actuellement na Sénégal fexe ba li ëpp solo mooy fiñ ñu koy xaare muy huitième de finale bu ñu fa demee incha allah bu ñu génnee match bi ba pare dem huitième de finale nga xam élimination directe la joueurs yi présent wane seen bopp muyee le maillot wane na ñoom ce sont des lions des vrais lions des vrais guerriers comme ni ko Sénégal defee woon à l'époque des Khalilou Fadiga à l'époque de El Hadj Diouf et même à l'époque de Jules François Bocandé et que aujourd'hui El Hadj Diouf nekk na ko il compte énormément sur Sadio Mané il compte énormément sur ses joueurs c'est parce qu'il compte sur ses sur ses joueurs que oui, je pense que l'on la nit di jëriñ les joueur Boko tout donc on a vu hier que euh, euh, comment dirais-je Sadio Mané n'a pas été au top top top niveau même si il qu'elle existé dans matchs mais gën nañu habitué les matchs et je pense que au fur des des des matchs dina a gis matchs représenté donc dans ces images vous voyez donc les Diomassi Kamara les Mamadou Niang les El Diouf les Alassane entre autres donc Thierno Seri aussi manager donc nini, ni euh, ñoom nek agent nyom ni Nyon représente représenté Sénégal ba et aujourd'hui de représenter ce sont les Sadio Mané ce sont les Abdou Diallo ce sont également les Khalidou Fadiga euh, plutôt les Khalidou Koulibaly également les Edouard Mendy entre autres donc c'est ce qu'on attend A c'est également il n'a plus de prétexte on l'espère ñu ngi touché du bois que joueur yëpp danañ ñëw match bi ñëw contre Malawi pour man match la bo xam dañu war a confirmer c'est pas une match bo xam un match bo xam ne bokk le war a ñëw Sénégal donc match la bo xam y day joxe prémisse que ne suñu équipe bi taxaw na lii la produire comme jeu espérant que ne dinañ dem huitième de finale inshallah allah génn fa dem quart de finale d'or, demi finale d'or, finale d'or. waaye nag wax ji du wax du wax rek du ñëw rek non il faut montrer ça sur le terrain en dehors du terrain il est temps que le Sénégal montre carrément son vrai visage son visage de lion il est temps que le Sénégal puisse montrer ce qu'il a dans les tripes, excusez-moi des termes, que le Sénégal puisse également montrer ce qu'on veut, quelle est notre philosophie de jeu, quelle est notre identité de jeu, quel système de jeu. Elle a euh, plutôt à veut mettre en exergue. Il a tous les balles dans son camp à lui de faire la passe Guy. En tout cas, toujours un plaisir Guy de les bonnes informations en espérant aussi avoir vos critiques, vos suggestions, toujours dans l'intérêt du sport, dans l'intérêt du football. Un peuple, un but, une fois dans l'amour et la sympathie et la solidarité et le patriotisme. Go